loolu mooy ci àdduna sépp wala ba ci Sénégal si àddina sépp noonu la mel ba ci Sénégal itam si àddina sépp léegi léegi Sénégal pourquoi imam Ndaw kon waaw c'est-à-dire imam Aliou Ndaw cest que li ma la wax sànq hmm. mooy achaddul muminina balaan al anbiya hmm. parce que dafa yegg ci darajatu al al yaqin fi diin hmm. léegi li daan dal gaa yu mag yi yegg na ci yar ko war ko yenu kon faw yi li daan dal gaa yi dal ko hmm. maanaam yoon la rek d'accord waaw d'accord tey ñun ñi bu ñu yeggoon ci niveau boobu noonu hmm. nattu bi day dal suñu ko d'accord loolu amul sax euh, kii waaw kon nattu bi moo tax ñi mën a jóge Dakar ba Kaolack waaw ak ñi fi romb ci ay boromi xam-xam ak imaam ak ñu ñuy wooye ay kilifa yëpp dem ci imaam Alioune Ndao jeex na nattu bi da koo yelloo hmm. parce que dafa sóobu ga yoonu anbiyaullahi soobu yoonu saxaaba yi mhm. soobu yoonu gaa yu màgg yi mhm. yoon woowu na ku ca jaar mhm. la daan dal gaa yi moo lay dal lan la ñuy jàngee ci loolu euh, ci dundam ndax itam bu doon day dund nekk fi suñ biir ah. war nañ koo jàng waaye tey jii itam dañuy placé waat hmm. pour mën koo jàngaat ndax ah. léeg-léeg yàlla noonu lay namme mbir waaw loo lan la ñuy jàngee ci loolu nga xam ne moo ko dal ginnaaw bi mu génnee nga gis ko ci télé bi hmm. mu toog hmm. di nett li yim doon dund ci biir prison bi euh, aspect boobu yow noo ko jàngate waaw liñ ci war a jàngee dafa bari euh, ñaari côté ngay ñaari bind nga ciy jàng benn bi mm-hmm. sant yàlla la mais benn bi gàccee la mm-hmm. waaw xam nga tey man maa ngi wax ne eh, su ma sañoon mm. tey journaux yi ci réew mi yëpp tey bi lu ñuy titre xam nga mooy lan mm. mooy imam Ali baal ñu àq journaux yi pour lan mais li ñu yàq deram ci àddina mais dafa ëpp mbàkkee. waaw mais loolu affaire information yi. waaw mais mais non c'est-à-dire xibaar yooyu la jot. Euh, léegi non non fa ñuy jëlee loolu lañ fa fekk. loolu lañ mën a bind léegi xam nga lu tax ma wax la loolu. Mm. journaux yi doon bind ci moom. Mm-hmm. na mu ngi yor ay millions ci ay dollars. këram nangam ak nangam tuumaal ay jabaram. ñaari jabaram. am seeni mbokk am seeni doom. ñu xëy na leen ay terroriste la. kon bi loolu amul waroon nañoo bindaan ne. non mais comme góor gi génn na àddina. Mhm. baalu ñu ko ak mhm. te lañ doon wax amul. Mhm. waaye léegi journaux yi bindoon yooyu. revue de presse yooyu ñu ci defoon. day naax saay wala malaaka yi ñu ngi ko denc. loo bëgg a wax ci loolu. mais c'est-à-dire que maanaam àq Aliou dañ ko tooñ tooñ gu méttee métti moom la yóbbaale bàmmeelam te ñi ko tooñ jéggaluwuñ mais mais Alamine est-ce ñaareel bi waaw mais loolu mais loolu loolu nekkul journaux yi dong parce que itam dafa mel ne diabolisation bu xasee am Alamine nit dem ba bokk ak moom diine ji sax ab liggéey waaye nga li ñuy wax nga am ci ay doute am ci looy gëm bu fekkee xamoo ko ah, léegi euh, xam nga moom laa la wax na la hmm. dama ne comme journaux yi ñoo doon bind di ko tuumaal ñu dem ba euh, tribunalu dakaar hmm. seetal ko ne li ñu doon wax dara amu ci hmm. xam nga jéggaluwuñ ko benn yoon biñ demee ba ne faatu na nag hmm. tey waaw tey waroon nañ koo jéggalu pour ragg seen der dégg naa bu baax waaw te journaux yu doon bind di ko sosal hmm. ñu ngi fii dëgg la ba léegi disparaître guñu hmm. waroon nañoo def seen à la une jéggalu ko parce que buñ ko jéggaluwul fii ko jéggaluwul fii wallahi dinañ ko jéggalu te maa ngi ragal nag sax mu topp leen ci seen àddina léegi beneen bi mooy état état bu Sénégal nga xam ne mooy ndey mbill gi waaw mooy mooy ndey mbill gi parce que li ko dal yëpp état moo ko ko teg ci jamono joo xamante ne ni sénégalais yi comprendre ñu dégg nga ñi comprendre ñemewu ñoo wax yow xam nga ne jamono jiñ koy tuumaal ñu bare bare bare bare bëri ci julliti réew mi ñu ci ñemee yëkkati seen làmmiñ défendre ko bariwul waaw même ñu xamee ne lii ay pexe la hmm. ñemewu ñoo wax lu taxoon loolu ak maanaam terrorisme lañu la ñu jabolisee noonu ba ñëpp ragal ko wala lan moo waaw mais loolu yëpp manque d'organisation la parce que jullit yi aussi war nañoo yegg ci conscience ak ci ñor. Mhm. bu dara ñëwee dañ koy taataan. Mhm. mën a def analyse mën a jël position da ngay gaaw da ngay nekk lu rapide. mais mais xam nga da ngaa wax jullit yi mais réew mi boo ñëwee day mel daa am gu ci am. Hmm. jullit yi bu fekkente ne da tudd tey mooy eh, këru diine yi ñi ñuy tuddee tarixa yi ak turuq. Hmm. Eh, ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy tudd mouvement islamique jublu ci association yi. Eh, léegi day mel ne am na am na ci foofu tuuti aw wéetaay wu ciy am ba du information yëpp. ñoom ñoo ci yewandoo même niveau de compréhension ba man cee njilandoo taxawandoo ci loolu itam noo ko noo comprendre mais alaaj hmm. affaire imam Alioune ndaw mais du affaire tarixa ak affaire mouvement islamique sax mais même ñi nga xam ne ñoom wa waa ñi ñuy tuddee mouvement islamique yi hmm. wala sax terme yi nit ñi dox des fois hmm. ibaadu yi mais ñu bëri danoo daw res amoon na ci ay mbokki ibaadu daw res ñoo man maa gis ay ibaadu dégg nga yuy wax ne nañ ci def ndànk nañ def ndànk ci imam bi am ñoo xamante ne naan la état lum mu xas wax rek am na fu mu ko teg loolu kañ am na ah dëgg la këru diine yi taxawaay yiñ ci waroon a def defuñu ko ci mais loolu jullitu Sénégal ngay wax bul mhm. xàjjale mhm. c'est-à-dire que julli ji yëpp mhm. dañoo lu ci défendre Alioune ndaw kon ñaari xaaj nga xaaj muy état bi wàllam mais wàllam ñun itam dañ cee am wàll kon ñun non ñun dañ cee am wàll bu doy waar parce que euh, maanaam bu ñuy bind histoire u jàpp na Aliou bi ñu ko tuumaalee terroriste ana ñoon ñoo jógoon taxawu ko kan ngay wax hmm. kan ngay wax ah Sidi Lamine Niass benn nit boo xam ne eh, imam Ahmad Dame Ligue des imams ñi mu nekkaloon waa danaa leen c'est-à-dire que même même ci biir Ligue des imams waaw am na ñoo xamante ne nii sax eh, tàmbali bi jaxasoo nañu hmm. même ci biir laa wax ligg bi. am na ñoo xam ne tàmbali bi jaxasoo. mais loolu itam Al Amine doo leen dogal gàntul euh, manque d'information wala dama lay wax situation bi Aliou Ndao dund. waaw li mu méttee. Mm-hmm. coono yi mu dund ci àddina. Mm-hmm. parce que seetaan gi ñu ko seetaan ci tàmbali bi. ñu bëri nag gaaw nañu defaraat seen position. Mm-hmm. jéem a dabaatal. mais fekk boobu dund na li muy la mais man dama li ma ko jàppalee ngànt damay wax ne. yàlla mi téye nit ñi. seetaan ko c'est parce que yàlla moo bëggoon Aliou Ndao am daraja ji mu war a am. la. parce que bu nit ñi tëboon ci tàmbali ba xëy na état du def li mu def waaye da da leen a téye mm-hmm. yàlla di ko teg nattu mm-hmm. pour yëkkatiku mm-hmm. yàlla di ko teg natt pour yëkkatiku yàlla di ko teg natt pour yëkkatiku Sidy Lamine Niass dafa comprendre xam na li xew ci àddina bi xam na ne sawaay eh, yow nan ngay waxee affaire terrorisme ci àddina bi ba mu jeex jàppoo benn yahud jàppoo benn chrétien jàppoo benn bouddhiste topp musulman yi rek dégg nga diw jullit la rek moom maanaam euh, jullit daal moo mën a nekk terroriste mm-hmm. len loolu xel mën na koo nangu mm-hmm. ak àddina bi ni mu bëree bandi mm-hmm. ak ni mu bëree raykatu nit dégg nga ak business bi nekk ci affaire u est-ce que xam nga ne tey mm. àddina bi yi gën a mën a indi xaalis jox nit xaalis tey xeexum sida la xeexum terrorisme ak affaire u planning familial mm. yooyu ay marché la d' accord comprendre d' accord ay marché la yoo xam ne nit ñi mhm. individuellement mhm. dañ ciy gañ a xaalis mhm. état yi dañ ciy gañ a xaalis waaw Sidy Lamine xam na li accord moo tax mu taxaw jël position bu leer nañ moo tax man dama dem maa ngi ciy wax ak euh, oustaz Fadil Gueye ma ne ko xarit fekk na xaritam dëgg la waaw soppe fekk na soppeem imam Ndaw keroog bi mu génnee ci prison bi Sidy Lamine la njëkk a seede keroog bi mu demee Sidy dafa yëkkati un million. ndeysaan jox ko ko. Mm-hmm. indil ko ay gaalu yére. Mm-hmm. ne ko tey su ma dee woon sax doy na. Mm-hmm. maanaam bu ma dee woon tey tey. dinaa tàlli. parce que yàlla daf ma suturaal. bi may wax naan Aliou Ndao liñ ko tuumaal du dëgg. nit ñi mënuñ ma woon a gëm. tey ñu dem ba seen yoon yi. seetalal la seen bopp. tey su ma su ma deewoon sax tàlli. Sidi Sidi di jooy yikket keroog. ndax bëgg ndax sant yàlla. dëgg la ndeysaan keroog ba fa imam jógee hmm. ci siidi hmm. ñu dem ma gisee ak moom hmm. nga mu mu ma ma xaar ko ci hôtel bi mu ñëw mu ne ma dama génn après nag ma demoon def xijaama parce que métti yi mu doon yëg ci kaso bi ñu defal ko nàmpatal waaw mu naan ma euh, waaw sëñ sëñ Mouhamed na nga dem defi mm. xijaama waaw yi baax na trop ndeysaan waaw man daal yaram wi ni ma yi ma doon yëg maanaam loolu kon nga yëge ci ne dund na ay métti yu métti ci kaso bi waaw da koo dund mm-hmm. da koo dund parce que man loolu euh, nit nettali wu ma mm-hmm. imam Alioune Badara Ndao moom ma ko waxal boppam lan la la wax man bi ma déggee Abdoulaye Ndaw rakkam mm-hmm. wax li imam dund ci kaso bi dama ne du dëgg mm. dama ne wax dëgg yàlla sénégalais jàpp mag mu tool nii di ko torturer psychologiquement mhm. mais sénégalais yi yegguñu foofu lu bon mhm. bon aussi réew mi am na lu ñu respecté ci àq ak yelleefu doomu aadama dëgg la waruñoo yegg foofu noonu mhm. Alioune Badara Ndao bu ñu ko jàppoon ci lu dul dëgg war na am lu ñu ko traité mais kenn war ko torturer ma dem ñaan mm, permis dem seeti ko. Hmm. keroog bi muy ñëw kon bi mu nekkee ci kaso bi. fan ko fekk rëbës wala campénal. campénal campénal campénal. Hmm, hmm. bi muy ñëw keroog mu ngi sol benn laafa. daal di kaalawu ba mu ba bëdi gisul. presque dégg bi muy ñëw kaala gi mu ngi tooy. mu ñëw ne ma Cheikh Mouhamad Lamine. li ngeen di wax yëpp dégg naa ko. te ngeen koy waxee noonu de yàlla xam ne noonu la demee. ndeysaan waaw keroog keroog keroog am nga yëg-yëg bu sori. waaw keroog am naa yëg-yëg bu sori. Mhm. dégg nga ma am gàcce nag. Mhm. wax dëgg yàlla xam ne kii lii mérito ko. Mhm. waaye xam nga li gën a metti ci àddina. non bala gaa dem foofu foofu lan la la wax après bi mu la waxee ne la li ngeen di wax lépp ci métti yooyu nga wax ne moom la dund. léegi dama ko koo laaj dama ko koo laaj mu ne ma dëgg la noonu la demee. ndar ba léegi ci torture laa nekk. ay xa ay yuux lañ may indil yenn saa yi ñu may saaga te du leen gis fii dañuy yokk tàngaayu néeg bi. Mm-hmm. ba yi na yi naaw di wër sax dañuy daanu. allahu akbar dégg nga mu ne ma mais man damaa jàpp ne lii xéewal gu ma yàlla defal la. allahu akbar billaahi allahu ne ma damaa jàpp ne xéewal gu yàlla defal la. allahu akbar ma ne ko man damaa dañ maa wax ne ma ci ka ka kii ndar bi nga nekkee ndar. Euh, amuloo woon téere yoo liir alkuraan nga doon jàng ci traduction bi da koo mokkal mu a ma xaaj suuf bi fa laa ko jàngee. Hmm. kaamil traduction bi. waaw mu ne ma xaaj suuf bi balaa may jógee ndar maa ngi koy tari. Hmm. traduction en français bi de. waaw waaw. est-ce que ah, moo ma wax lii. allahu akbar dégg nga mu ne ma maa ngi ci xaaju suuf maa ngi ci xaaju kaw bi fii hmm. moo tax dimbale nañ ma ci benn côté mun ne ma beneen bi aussi man dama daan am ñaari sibiru yu may dal chaque année. day métti ba jéggi dayoo. waaw mais yàlla def na ñoom ñu ma téye ba léegi daluma macha allah waaw bu dul daal eh, yi ñuy tàngalak yi ñu may def maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax donc kon yooyu muy wax eh, ne da koo dund man moo ko nettali waaw ma moo ma ko nettali waaye ba ma fay jógee sax Mbàkke hmm. keroog eh, mbigte laa fa jógee ndeysaan mbégte laa fa jógee parce que confiance bi ma gis ci moom hmm, hmm. ak ak cawarte gi mu àndal dégg nga wax dëgg man boobu gis Aliou Ndao rek. Mhm. doy na ma sëkk. ndeysaan waaw doy xam man Aliou Ndao xaw ma ko. Mhm. daanaka seen rek laa koy def. comme li ma lay wax noonu. Mhm. bi ma ko njëkkee gis Mbour. am yëg-yëg boobu noonu. yi ci des damay déglu conférence am. des fois xam nga li yàlla xam doy na. waaw man si ñu ko réeree woon ci laa bokk. mais lii ñu la wax ne loolu dund na ko. dund na ko moo tax alaaji dama ne. sénégalais yi dañ ko war a jéggalu mhm. parce que dafa am tooñ yoo xam ne bu ñu ko tooñee nit day mhm. topp askan d'accord waaw état du Sénégal mhm. daf ko waroon jéggalu man keroog bi maître Moussa saar waxee ne euh, imaam nee na toppul kenn dara dama ne loolu imaam loolu lay wax imaam du topp kenn dara bëggoon état état état def ah, déedéet après bu nee moom toppul kenn dara waaw léegi lan la lan la avocat yi waaw léegi léegi da ngay jàpp ni tëj ko ñetti at deful dara Ah, mais loolu suñu système euh, suñu système euh, bu si si su réew mi. Mm. bari na bari na ñoo xamante ne dañ leen di tëj jékki-jékki euh, ñu jàppee koo xam ne defoo woon dara bàyyi la. ñetti ati kaso. waaw tuumaal la. waaw yàq sa der. waaw non non xëy na xëy na xëy na ci cas bi moom. bii moom kaawu boppam la. waaw man bi laa wax. waaw xam nga cas bi boo xamante ne la wax dëgg yàlla li nga wax léegi. Mm. wax ñi ngay wax képp ku koy dégg te am yëg-yëg. Mm. sa yaram dina daw. rawatina ki ñu ko doon def nga xam ne du xale. nekk mag. moo xamante ne bay la xam mhm. ak jàngal ay dongaam mhm. euh, bu du woon dañ ko tëj diabolisation bi ñu diaboliser imaam rek mhm. euh, ku ko def nit ba muy tuuma ju tol noonu bu la wóoree ne defu ko war nga koo jéggulu waaw rawatina nag nga boole ci tëj kaso rawatina nag nga teg ci méttital loolu ay métti métti yu baree baree bari la léegi lan lañ ciy jànge fi ñu toll non xam nga état dafa am yoo xam ne da koy jéem a dabaatal donte mënoo ko sax xam nga tey njiitu réew mi bi bi loolu amee moom moo wax Sidi Lamine na ko imam Ndaw deful dara. Macky Sall moo ko wax. mais ñoom Matar Joxaan ak yooyu. Sidi na ko man waxuma Joxaan ak imam Ndaw laa wax. yaa ngi dégg. xanaa xam nga même xale yi ñu jàpp nii nii nii nii nii war nañoo xoolaat seen mbir. ci affaire terrorisme parce que ñi jàpp ñëpp partout dans le monde. même ñañ jàppoon Guantanamo. ñu ngi leen di libéré. xool ñu leen di libéré. dëgg la te xale yi naan tëj naa leen ay vingt ans. loolu état yi dañu war a xam ne yooyu ay mhm. business la yoo xam ne mhm. boo réglé li ngay réglé ba mhm. pare libéral xale yi ñu dem dund seen dund incha allah dem dund leneen maa ngi ñëwaat al amin euh, au moins sax ñu xaw a génn ci aspect boobu euh, ndax itam lu am solo la ci dunduk imam parce que dafa doon loo xam ne euh, nitu yàlla ni nga ko waxee kenn ku nekk day am lu ko marqué ci dundam waaye bëgg naa ñu seetaan imam mi nga xamante ne moom la ñuy waxtaane euh, bu ko defee Ilias mu tegal ñu ñu ñu déglu ñu déglu kàdduk imaam euh, rawatina taxawaayam ci kaw ci kanam minbar imaam buñ ko déggee dinañ dégg alxuraan joo xamante ne jéggi na dayo lool euh, ci neexaay kon bu fekkee jàpp na Ilias nga tegal ñu ko